Euh, je pense que dëgg bi ci urne lay jóge euh, population yi ñooy décider ñun wax nañu ku nekk programmam am ñu defar nañu suñu bilan donc si cappaandaw bu en démocratie c'est les populations qui décident donc ñoom ñooy décider kan la ñuy tànn ñi ñaan yàlla rek euh, ñu jox ñu koo xam ne moo gën ci Ziguinchor moo aussi ko yàlla tànn tànnal ko waa Ziguinchor donc bu su jógee ñëpp nangu verdict bi man dina naa ko nangu lu mu munti demee. Euh, aussi euh, di ñaan euh, bu lii yëpp demee ñun ñëpp ñu delloo booloo nekk benn parce que ñun ñëpp doomu Ziguinchor lañu dinañ pour liggéey ville Ziguinchor pour liggéey aussi département bi donc kontaan naa trop di gërëm ñëpp. ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant samay waajur sant suma sëriñ Mouhamed Mansour si radiyallahu taala anhu yàlla na yàlla yokk leeram te tax ñu ci barkeem def naa sama devoir civique voté naa di sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla pandant la ci campagne bi yëpp ndaxte bon donte sax am na ay ay xiiroo ak ŋaayoo mais deret tuuru ci ñoo ci sant yàlla bu baax. Casamance jàmm la soxla euh, scrutin euh, campagne bi def nañ ko ba génne ci ak jàmm votu tey bi ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla sàmm ñu yokkal ñu jàmm ba ñu génne ci ak jàmm ak salaam. lu ci am daal moom macha allah euh, ku nekk war nga xam ne rek loolu euh, loolu mooy mooy mooy résultat bi ndaxte ñun dañuy yëngatu rek waaye yàlla ki mu war a fal fal na ko bu démb tey soog a yegg si.